bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi déglu suñu kàddu ak fu ñu mën a nekk ñoo ngi duy ñëpp nuyoob lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeelit ci weer wu mag wii nga xam ne moom la dugg muy chahru ramadan al mubarak di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq nangu mbooleeb suñ ay jaamu yàlla te jéggal ñu suñu ay bàkkaar ñoo ngi nuyu mbokk yi ñëpp rawatina nag mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci groupe yi tudd laaj ak tontu ci diine mboolem groupe yëpp numéro bu fi nit mën a nekk ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaara te di la ndokkeel ci weeru koor wi ba tey itam mbokk nekk ci canal telegram bu tudd Oustaz Mouhamed Diagne wala canal telegram bu tudd tafsir Quran wolof ak mboolem fu nit mën a nekk rek ci groupe whatsapp yi ak ci canal telegram yeeg youtube fu nit mën a nekk di dégg suñu kàddu ñoo ngi lay nuyu te di la ndokkeel ci weeru koor wii di sant yàlla bu baax a baax bim ñu defalee tawfeex ñu fekk waat weeru koor ren deux mille vingt deux daaw ci koor gi lañ ko ñaanoon mu defal ñu tawfeex ñu fekk weeru koor déwén moom yàlla ci ak mbaaxam mu nangu suñu ñaan defal ñu tawfeex ñu fekkee ko ko ñoo koy sant ci loolu bu baax te di ko ñaanaat mu defal ñu tawfeex ñu fekk waat weeru koor déwén incha allahu taala kenn bañ a manqué te bu ànd ak wér ak tal di ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem suñ mbokk jullit yi nga xam ne ñoo ngi nekkoon ak ñun daaw doon dundu dundandoo ñun weeru koor wi fii ci àdduna taw yàlla def ren ji jiitu ji daal di faatu yàlla nañ yàlla yërëm yàlla na yàlla jéggal leen seen ay bàkkaar yépp yàlla yàlla musal leen ci fitna yi bàmmeel yàlla na yàlla defal leen faatu gi seen noflaay yàlla na yàlla yóbbu leen ci àjjana yi gën a kawe te sàmm seeni njaboot may leen xolu muñ bàyyi leen fi itam ñu yàgg leen a ñaanal képp koo xam ne am na lu muy jàmbat ci yitte moo xam jafe-jafe la moo xam wér yaram la moo xam soxla la lu mu mën a doon yàlla na yàlla dindi jafe-jafe yépp saafara mboolem wirdi yëpp dindi mboolem njàqare yëpp may ñëpp jàmm ak aafiya ginnaaw loolu comme niñ ko baaxoo ànde ak yéen ci weeru kor wu jot depuis 2016 di amal ay jataay yi tafsirul karim noonu lañ ñëwaate ak yéen tey inchaa allahu taala ngir ànd ak yéen jataayi tafsirul quraan al karim diirub weeru koor wi bis bu set inchaa allahu taala comme ni ngeen ko xamee yàlla dogal na weeru koor yi jàll yëpp dañuy amal jataay tafsiri ci bis bu set su weeru koor jàllee ñu continuer jataay tafsiri par ajjuma ci loolu yàlla def na taw tawfiq ba jot nañoo tafsir li tàmbalee suratul fatx ba naasi suratul ba naasi jot nañ ko tafsir ci ndimbalul yàlla mboolem jotaay yooyu yëpp saar bu ci nekk def nañ ko benn audio mi ngi ci benn kanaal bu tudd tafsir quran wolof wala firi alxuraan wolof ba tey itam canal bi tudd Oustaz Mouhamed Diagne itam ci telegram ñaar yëpp ku fa dem da fekk mboolem audio tafsir yëpp su ko defee kon weeru kooru ren jii ci atum 2022 saar yi nga xam ne fas nañ ko yéenee tafsir diirub weeru koor yi bu ko yàlla dogalee incha allahu juróomi saar yi lay doon mooy saar yu topp ci Faatiha la ñuy tàmbalee mu suratu Muhammad ak suratul ahqaaf ak suratul jaasiya ak suratul duxaan ak suratul zuxraf juróomi saar yooyu incha allah moom lañ fas yéene tafsir ci weeru koor wi bu juróomi saari jeexee te weeru koor wi jeexul ñu teg ci saar wa ci topp rek muy ashora di ñaan yàlla mu nangul ñu mboolem jataay yëpp nangul ñu mbooleem suñu ay jaamu yàlla yëpp nangul ñu mbooleem suñu ay yëngatu yépp te jéggal ñu suñu ay bàkkaar dafa ñu taw it ba weeru koor wi ñu tàmbale ko ci jàmm àggale ko itam ci jàmm te yàlla jàppande la ñëpp ay xéewal ak wërsëg bu ñu mën a dundale seen njaboot suuratu muhammad madina la wàcc saar wi madina la wàcc dañ koy wooye suratu muhammad di ko wooye suratu alladina kafaru di ko wooye itam suratul qitaal li waral ñu koy woo suratul qitaal mooy yàlla def cee soññee ci biir jullit ñi daal ñu jàmmaarloog yéefar yi buñ leen naree fitna nara gàllankoor seen diine ñu xeex ñoom war ñu ko tudde suuratu xitaal muy saaru xeex li tax ñu tudd tudde saatu saaru suuratu lazina kafaru it mooy saar la woo xam ne yàlla fi nettali mbirum ñi weddi yàlla ak seenu fay ëllëg suratu muhammad nag dañ ko koy waaye ngir ne moom ba tey saar la woo xam ne yàlla da tudd suratu da cay tudd sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ci tàmbali bi te ne saar woo mooy yàlla njëkk a tudd turu turu Muhammad avant muy tudd Muhammad ci sootu Ali Imran ci saar wi la ko njëkk a tudde moo tax ñu tudde saar wi sootu Muhammad muy saar woo xam ne libub ay aayaam fanweeri aaya la ak juróom-ñett saar wi mi ngi wàcc ginnaaw suratul Raad eh, ginnaaw suratul Hadid avant suratul Raad ginnaaw bi xadir wàccee la saar wi wàcc di muhammad ginnaaw ba di dog caa topp muy saar woo xam ne eh, limub ay aaya wax naa ko sànq fanweeri la ak juróom-ñett bu dee ci ni saar yi wàcce tof maanaam ci wàcci ni saar yi toftaloog wàcc gi moom mooy juróom-ñeen fukkeelu saar ak juróom wàcc waaye nag bu dee ci ni kaamil bi toftaloo moom nii moom mooy ñeen fukkeelu ak juróom-ñaar mooy ñeen fukkeelu saar ak juróom-ñaar ci ni kaamil bi toftaloo bu fekkee da nga tàmbalee ci kaw bàqara jëm si ci suuf saar bi dafa ñëw ngir traité ay thèmes yu bari waxtaan ci ay sujets yu bari bokk na ca wax li tàqale jullit ñi ak yéefar yi waaye tam wax ñoom ñooñu seen jëf lan la wax itam seenu fay ëllëg yowmal qiyaam ak seenu naan lan la waaye itam saar bi dafa ñëw ngir wane ne nay nay baaxut waaye itam mu ñëw ngir digal jullit ñi ñu jàmmaaloo ak yéefar yi xeex ak ñoom xeex ak ñoom waaye it wone bu baaxa baax li tàqale jullit ñi ak yéefar yi ak seen fay ëllëg soññi bu baax a baax itam jullit ñi saar wi kon mi ngi tàmbalee ci alladina kafaru yàlla ubbee saar wi ci ŋàññi yéefar yi metti waaye tam tagg jullit ñi taggu rafet mu ne alladina kafaru gaa yi nga xam ne dañoo wedd yàlla wa saddu an sabilillahi ba noppi itam bëgg gàllankoor yoonu yàlla ba kenn du ca jaar ñoom dañoo bëgg ne duñ dem te duñ bàyyi kenn dem yàlla ne ñooñey day adolla adolla amalahum adolla amalahum réeral naa seeni jëf sànk naa seeni jëf ba du leen benn njariñ dañuy sonn rek ñim namm ci lazina kafaru ñi wax mooy yéefaru qurayshin ñi nga xam dañoo wanoon ginnaaw alquran wanoon ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ñoom ñoo weddi alquran weddi yonante ba noppi nag di ter nit ñi ñu gëm yonante bi di tere nit ñi ñu gëm alquran di leen jéem a gàllankoor di wax na bu leen déglu kii di yàq dero yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu dégg bëccëg ngir bañ kenn déglu ko ngir bañ kenn gëm ko kenn topp ko yàlla ne na ñu lañuy def lépp ah, teewut adalla amalahum moom yàlla nee na sànq na yàq na seeni jëf ba nga xam ne dootu am benn njariñ du am jenn jeexit tey jii nekkatuñ fi faatu nañ bi yàgga yàgg-yàgg te kenn xamatu leen seen jëf ya naax saay na nasax na nasax na bokk na ci lim namm ci amaalahum itam mooy jëf yi ñu jëf ci àdduna sax muy nuru jëf yu baax lu mel ne teral gan ak topp ñaari wayjur ak dimbali ku am aajo yooyu yëpp yàlla nee ba tey amul leen benn njariñ ginnaaw bañ faatoo ndax jëf lum rëy rëy ak lum rafet rafet day tegu ci ak ngëm yàlla waa jaam bi bu gëmut yàlla moom bu xasee wedd yàlla lum jëf ak lum baax baax baax perte rek la koy jural ak sànku waaye yàlla du ko nangu ñoom ko waxee ci alquran na qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan manthura képp koo xam ne dafay jëf te jëf ci tegu ci ngëm yàlla bu yowmal qiyaama day fekk jëf ji nekk pënd bu ñu wisaare waaye du am benn njariñ moo tax mu ne ñoom kat daan jëf ay jëf mu ñuru yu baax waaye jëf yooyu yëpp adalla amaaluhum yàlla daaneel na ko sippi na ko tasaare na ko yàq na ko yàq na ko kon adalla amaaluhum day tekki yàq naa seen jëf yi ba duma ko nangu waaye day tekki itam seen pexe yi ñu leen pexe ngir gàllankoor yonente bi ak yoonu yonente bi ak alquran ba te yàq naa ko ndax dimbali naa sama diina ji ba diina ji moom mooy wéy yonente bi ba léegi ñu ngi koy topp ba léegi ñu ngi koy gëm di tuddu turam waaye ñoom kenn xamatu leen lañu woote kenn topp leen ci mu ne walladina amanu gaa yi nga xam ne nag dañoo gëm dañoo gëm yàlla gëm yonante bi gëm alquran gëm dekk wa amilu xaate ba noppi di jëf-jëf ju baax ba noppi itam wa amanu ñu gëm bi ma nuzzila ala muhammad ca lañ wàccee ci muhammad tamay alquran wax na ko sax wa huwa alxaqu min rabbihim te loolu mooy dëgg gi nga ne moo jóge ca yàlla mooy alquran ñoo ñee kaffara anhum sayyi'aatihim ñoom moom seeni ñaawteef dama leen ko fóotal ba mu set remplacer leen ko wutalal leen ko aw yiw kaffara anhum sayyi'aatihim fóot naa seeni ñaawteef fay leen ci ay yiw wa aslaha ba ma baaxal baalahum seen mbir nga fee nee na adalla amalahum ñi ma mu ne aslaha baalahum luy différence bi moo ñee dañoo allazina kafaru ñii nag allazina amanu gëm yàlla mooy fondement bi jëpp jëf ju baax kon yàlla mu ngi leeral fii lim préparé jullit ñi ci aw yiw nee ñi nga xam ne gëm nañu tey jëf-jëf ju baax ànd ak sellal topp yonante bi sallallahu alayhi wasallam gëm alquran ñoom day seen ñaawtee yiñ ñu def yépp dama leen koy fóotal fay leen ci sax lu baax ba noppi itam baaxal seen mbir gis nga mu ne walladina amanu ba noppi waxaat ne wa amanu bi ma nuzzi ala muhammad loolu mooy li borom xam-xam balaaxa tudde atful xaas ala al ndax ba mu ne wallazina amanu ñi nga xam ne gëm nañu rek ku ku gëm moom day gëm yàlla gëm yonente gëm alquran gëm bis gëm lépp waaye cité gum cité waat wa amanu bi ma nuzzi ala muhammad loolu daa bëgg a gën kat lii nga xam ne moom la wàcce ci yonent bi sànni sax muy alquraanu karim ca yàlla la jóge te yàlla la jóge te nit mënta gëm yàlla gëm yonent bi di weddi alquraan di weddi alquraan waaye daa wane màggaay alquraan kon moo tax mu tuddaat ko beneen yoon gannaaw bi mu waxee ne wallazina amanu ba pare kon wa huwal xaqu min rabbihim jumla i'tiraadi die na kat lii ci yonent bi sànni sallam yàlla moo ko wàccee ci moom waaye jéggiwut ci yonent bi sallallahu alayhi wa kafara ji wax ci kafara la jóge day tekki muur daa bëgg wax ne kafara euh, kafara anhum sayyi'aatihim mooy muur na seeni ñaawteef suturaal na leen dindi na ko ba ba yowmal xiyaamee bu ñu leen wan seen téere jëf ñaawteef yooyu moom du ca nekk kon mun na seen ñaawteef ba noppi defar seen mbir defar seen mbir ndax ñoom dañoo gëm yàlla tey def lu baax moo tax te yàlla wax na ci an alxuraan ne innal xasanaat yuzhibna at jëf yu baax yi dafay dindi yu bon yi moo tax mu defal leen tawfeex bañu tuub kon baalahum ji mu wax fii mooy alxaal wal amru wa sha'n kon wa aslaha baalahum ji mu wax xéewal gu màgg a màgg goo xam ne kenn du ko yëg lu dul ku ko yàlla may lu dul ko yàlla may mooy am xel mu dal am ngërëm ci sa xol am xol bu sedd di ngëm di yëg foo tollu amaan sécurité di yëg jàmm ci sa xol loolu ngëm yàlla rek moo koy maye yàlla na zalika li nga xam ne wax naa ko mu ñuru aw ŋàññi ñeel yéefari zalika loolu nag la ko waral bi ann alladina kafaru mooy ña nga xam ne dañoo wedd yàlla mu yéefaru màkka ñoom ittabaul la dañoo topp ay neen topp ay caaxaan kon zalika loolu nga xam ne moom laa faye yéefar yi ba noppi itam faye faye ñi lu baax sabab bi moom mooy ñëwet yàlla ñoom ittabaul baatila dañoo topp ay caaxaan topp ay neen topp loo xam ne wenn yiw amu ca ña yàlla nag ñoom dañoo topp lu baax ñoom topp yonante bi sana sam gëm alquran zalik foofu mubtada la xabar ji mooy li ñëw ginnaawam kon zalika ñooñu lu tax loolu am mooy bi añal la seen kafara ñu wedd yàlla ittabaul baatila dañoo topp ay caaxaan waa anna alladina amanu ñu gëm yàlla nag ñoom ittabaul xaqa dañoo topp dëgg damay alquran ak waxee yonante bi sallallahu alayhi wasallam dañoo topp dëgg dëgg goo xam ne min rabbihim mi nga jóge ci seen boroom ba leen bind yàlla ne kadalika noonu nag yadribu llahu linnaasi amfaalahum noonu la yàlla joxe misaal nit ñi pour bëgguñu comprendre leer bu leer boobu nañ ñi wane mbirum yéefari wana mbirum jullit ñi ku nekk mu wax la ngay am ëllëg ak lan moo ko sabab noonu la yàlla joxe misaal fii ci àdduna ngir bëgg kuy fagaru nga gaa fagaru balaa dee ñëw fagaru nga balaa dee ñëw xam ne ku gëm yàlla topp ko yàlla far la say ñaaw teef waaye ku wedd yàlla féttalu yàlla yàq say jëf yàq say jëf mu daal fa ida laqitum alladina kafaru yéen jullit ñi bis bu ngeen dajeek ñi nga xam dañoo wedd yàlla fa ida faa gi foofu li tarte bi ma baadaha la day toftale ñeel li ñëw ginnaaw bi ci ay orientation yoo xam ne ko jox jullit ñi fa isa laqitum alladina kafaroo bu ngeen dajeek ñi nga xam dañoo wedd yàlla daje gi foofu mi ngi jublu jamonoy xeex jublu ci rek dajee noonu rek dajee ci mbedd noonu déedéet waaye fa isa mooy bu ngeen dajee ngir xeex su boobaa fa dorba riqaab la leen digal mooy na ngeen dóor baati yéefar yi foofu mi ngi leen digal la lañ war a def buñ dajeeg yéefar yi ngir xeex fa dorba dañ ko nas bu ngir nekk gum nekk masdar wala dañ ko nas bu ngir masdar la boo xam ne fi'lam dañ koo xasaf daa bëgg wax ne daal bu fekkee mbir mu yéefar nii la demee nga xam ne yàlla yàq na seeni jëf ci sababu topp guñ topp ay neen ak wan guñ wan gën a alquran su ngeen dajeeg ñoom kon bay xeex ak ñoom ba dara desul lu may xeex bul leen yërëm bal idribu riqaabahum darban shadidan na dóor seen doq ya dóor yu tar dóor yu metti nga jëfandikoo gum jëfandikoo fa darba riqaab ngir bëgg wane maanaam melo wi gën a mett gën a tar ci xeex ndax booy xeexe nit ki man nga koo dóor ci tànk man koo dóor ci mbagg man koo dóor fu ne waaye yàlla nag dàq doq ya baat ya ne dóor leen baat ya dagg leen seen baat ya loolu daa gën a day bëgg a wane mettitu wala boog mere gu yàlla mere yéefar yooyu ak mettit yu ñu war a yëg buñ jàmmaarloog jullit ñi waaye ngir tiital leen itam ak orienté jullit ñi tam ca lañ war a def kon waxe na ko ma waxin wu tar wu metti waxe na ko waxu wu metti kon bu ngeen dajeek ñoom yàlla neen fa darba na ngeen dóor seen loos mu ne xatta iza asxantumuhum al itqaan mi ngi jë maanaam li muy tekk mooy blessé yu bare blessé yu bare ñu ngi ko jëlee ci achay u saxiin mooy mbir mu ñagas mbir mu tal mbir mu tal yàlla nee na xatta isa asxantumuhum su ngeen demee ba blessé leen blessé yi méttee méttee fa shuddul wasaaqa na ngeen leen takk ay buum yu dëgër jàpp leen ay jaam kon gis nga ba yàlla ba tey bàyyiwut nee na bu ngeen dajak ñoom na ngeen dóor seen doq ya boo leen dóore bañ bileesa nag ba sonn ba ngeen jekku leen ñu am ay bileesa yu mette mette mette su boobaa na ngeen leen jàpp ngeen takk leen ay buum ci seen baat yi jàpp leen ay jaam ba nga xam ne kenn du mën a rëcc kenn du mën a daw isa atqantumuhum bu ngi leen blessé ba ñu sonn fa suddul wisaaq te takk leen ay buum su boobaa fa imma man na lim nam ci an man fii mooy bàyyil bàyyi man bu ñu jàpp bi nag bàyyi leen ci lu ñuy joxe dara su boobaa bu leen neexee bàyyi leen leen fa imma man nam baadu wa imma fidaa a bu leen neexee it laaj leen ak jot ne leen kat ku nekk day fay nangam ñu doog ko bàyyi fidaa mooy loo xam ne asir la koy jox asir mooy kuñ jàpp ci xare loo xam da koy joxe ngir mën a moom boppam ngir mën a rëcc nee na suñu leen jàppee subaa nag yéene tànn su boobaa bu leen neexee bàyyi leen leen yërëm leen te du du leen laaj dara su ko loolu sax mën tax ba ñu dellu si ginaar bi dugg ci lislaam mbaa yu mel noonu leen bàyyi leen xel bu leen neexee it leen kat da ngay joxe ak njot da ngay joxe ak njot fay ñu doog leen a bàyyi mu daan ne def leen loolu def leen loolu xatta todaal xarbu awzaaraha def leen loolu ba keroog xare bi di jeex aw xar xarbu mooy ay jumtukaayam ak ay coonaam kon daa bëgg wax ne def leen loolu ma leen digal ci yéefare bëggoon daje ak ñoom ngir xeex ak ñoom continuer leen ci loolu ba keroog xare bi jeex ba keroog ngeen tàqale ko seen noon yooyu ci gañe leen ak am ndam seen kaw ci gañe leen am ak am ndaw seen kaw yàlla nag daldi leeral leeral ma bi tax mu yoonal xeex ak yéefar yi te moom yàlla bu ko neexoon kenn du xeex fa mu nekk lay nekk moom yàlla alak yéefar yi su ko neexee ci benn seconde ñoom ñëpp mën na leen cee faagaagal waaye lu tax muy digal jullit ñuy dajeeg yéefari di xeex ñoom di sonal seen bopp mu bëgg a wane ma bi mu ne daalika lool nag li tax ma wax leen ko def leen loolu ma leen wax te xam ne walaw yashaau llahu bu sooboon yàlla bu neexoon yàlla lan tosara minhum yàlla am ndam ci seen kaw bu neexoon yàlla mu mbugal leen teg leen lu mett ba duñ leen tal yéen du jar subaa yéen kenn di sa ngànnaay jëm ci ñoom bu ko neexoon lan tasar minhum mu am ndam seen kaw faagaagal leen waaye yàlla defut loolu da diggal ngeen jëkk xeex ak ñoom li tax nag mu digal leen ngeen xeex ak ñoom lay bëgg a wax xekk ma bi tax mu digal leen ngeen xeex te yàlla moom jëlut ay maanaam jàmmaloo ak ñoom directement mu ne walaakin waaye li tax mu digal leen ngeen xeex ak ñoom mooy li yabluwa baadakum bi baad ngir mu nattu ñenn ci yéen ci ñeneen ñi ngir mu nattu leen ba xam yéen lu leen yàlla jaral lu leen seen diine ji jaral lu leen jóg xeex ci yoonu yàlla jaral nattu boobu ci la yàllay ràññatlee ngir ñépp xam ki ngëmam dëgër ak ki ngëmam woyof comme ni nga ko waxee ci alxuraan ci beneen bërëb wala nablu wannakum xatta naalamal mujahidina minkum wasaabirin wa nablu ba axbaar wa nablu ba axbaarakum daa leen nattu ba xam ci yéen dëgg-dëgg jihaadkat yi xeexkat yi ak dëgg-dëgg muñkat yi ak ñi nga xam dañuy rëkkal dañuy daw ñi nga xam dañuy daw kon ne dama ne di ngeen xeex ñoom ngir ma xam yan façon ngeen xam ñiy jàmbaar yi ak ñiy ragal yi xam ñi gëm dëgg dëgg seen gëm dëggat ak ñi nga xam ne seen ngëm dëgërut ba nag mu daal leeral moom yàlla li mu waajal ñi nga xam ne nag seen gëm daa dëgg ba ñu xeex ci yoonu yàlla lam leen waajalal ci ab yool mu ne walladina qutilu ñi nga xam ne dañoo njàmbaare dem ci yoonu yàlla di xeex ba ñu rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñoom de ñoom day falay yudilla seen jëf ya moom du sànku seen jëf ya kenn du ko yàq du neen seen jëf du réer de ndax sa yahdihim moom yàlla dina leen gindi jaarale leen ci yoonu texe jaarale leen ci yoonu mbégte mu daggate mukk ba noppi wa yuslihu baalahum mu defar seen mbir defar seeni xol defar seen mbir mbir defar seeni xool yomut foofu de wa yudxiluhum wa yudxiluhum mu dana dana leen tàbbal moom yàlla aljannata aljanna da leen tàbbal aljanna kenn ku nekk mu wërsëgale ay kër yu baree bare ci biir ay aljanna dafay googu du ca manqué te aljana yooyu arrafaha moom yàlla xamal na leen ko xamal na leen aljana yooyu ñu war a dem al alusi nee na arrafaha xamal gi leen ko yàlla xam mi ngi jublu alaaxira yàlla mi jublu alaaxira waaye am na ñu ne it jaar giñ jaar ci baax daal di jihaad ci yoonu yàlla te yàlla nag ko faatu ci jihaad àjjana nga jëm kon ñoom dañuy xam ne kon ñu ngi ci yoonu aljanna ñu ngi def lu baax kon ñu ngi ci yoonu aljanna kon loolu la arfaha lahum ji di tekk am na it ñu ne arfaha lahum ji li muy tekk mooy ñoom ñooñu xetuk àjjana da xeeñ xetuk àjjana da leen di xeeñ avant ñu fay dugg kon saar wi andin lu bare bare bare ci ay àtte bokk na ca ne yéefare dañoo war a xeex ak ñoom ca na mu gën a tare na mu gën a mettee bu fekkee dañoo jàmmarloo ak ñoom ba ba ba ñu néew doole ba ñu daw waqit tañ jàpp leen takk leen laaj leen ak jotu mbaa ñu yeewi leen ñu dem te am na yeneen aay yu bari yu ñëw di ko gën a feddali lu mel ne yaa ayuhan nabiyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waxlud alayhim wa mawaahum jahannamu bi'sal masiir loolu kon bokk na ci li aaya yi wax wane tam ne bu buñ leen jàppee bu leen neexee laaj njot bu leen neexee tam bàyyi leen loolu nag boroom xam-xam yi nee ñu jullit ñooy xool rek ñoom lu ñu lu nu seen kaa deme nu seen xaala toll ci jamono boobu lum laaj rek ñu def ko lum laaj rek ñu def ko aaya itam ñëw na ngir bégal ñi faatu ci yoonu yàlla ci ab yool bu màgg a màgg a màgg te mooy lan yudilla amaaluhum sa yahdihim wa yuslih baalahum wa yudxiluhum al janna yépp ay xeetu xew na yàlla tudd na ko alimaam ibnu kasir tudd na ay xadis yu bare bare bi muy firi aay yi xadis yoo xam sax moo ko wax ci nga neeli ku faatu ci yoon yàlla mu wax ne ki faatu ci yoon yàlla daal yàlla jox na ko ay ngëneel yu bari bokk na ca deretam saa yuy toq di tuuru ñu koy fa ay ay ñaawteefam day toq ba noppi balay faatu tam day gis këram ca aljanna ba noppi yàlla dina ko wërsëgal ay xuurul ayn soxna yu bare bari bal ca aljana te itam bu yowmal xiyaame bu ñëpp dekkee ñëpp tiit di rap-rappi ngir tiitaayu bis penc ñoom moom dañu am sécurité ba duñu tiit te it yàlla dina ko mbusal ci mbugalum bàmmeel ba noppi itam bu yowmal xiyaame ñu takkal ko barz wala màndarga muy wane ne kat kii ku gëmul yàlla la ku texe la kon ñu taxaw fii ba ëllëg ñu ñëw ak yéen ci jataay ci topp ci laay ci topp bismillahi mbokk yi ñu ñëwaat a yéen ci jataayi tafsirul quraanil karim yi ñuy ànd ak yéen ci biir weeru koor wi atum 2022 tey nekk su ñaareelu jataay ñoo ngi ak yéen ci suuratu muhammad wala suuratul qitaal ci jataay bi weesu ñoo ngi taxawoon ci laaya juróom benn wa yudxiluhum aljannata arrafaha lahum ñoo ngi jaajëfal bu baax ak ñaanal mbokk yi nga xam ne neexal yi ñuy joxe ci groupe bu laaj ak tontu ci diina ci laaj diina yi ñu fay laaj dugal nañ seenu aw ñaq barkeelu ca gàddu neexali ay fan loolu ñu ngi koy ñu ngi koy rafet lu baax te ñaan yàlla mu fay leen ngeen ji fay dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne daanaka ba ñu tàmbalee loolu depuis 2017 ba léegi at mu jot ñu dugal ci seenu barkeel ngir soññeeku seen ay mbokku jullit yal yàlla fay leen te yokk leen bu baax a baax ginnaaw bi nga xamee ne yàlla wax na li muy fay ñiy xeex ci yoonu yàlla bu ëllëgee mu la lancé nag benn appel appel boo xam ne ko jëme ci jullit ñi gëm yàlla daan na yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla in tansurullaha su ngeen dimbalee yàlla yansurkum moom yàlla it mu dimbale leen yàlla neen na yéen jullit ñi bu ngeen dimbale yàlla rek yàlla dimbal leen bu ngeen nekkale yàlla yàlla nekkal leen dimbal yàlla nag fii ci aay bi la ci yàlla jublu mooy nga dimbale yàlla ci diineem ci premièrement nga koy jëfe yow ci sa bopp di topp ndigal yàlla yi di bàyyi ay tereem topp yonante bi sallallahu alayhi di bàyyi ay tereem waaye itam ngay dimbale yàlla ci ñoŋal diineem ci dimbali yàlla ci aar diineem ji dimbali yàlla ci tasaare diineem ji koo mën a gindi ko mën a laabiira loo mën a jottali ci diine yàlla ji nga jottali ko ñeneen balligu anni walaw aaya loolu yonent bi waxoon donte benn aaya sax nga xam ko nanga ko fexe jottali keneen yàlla nee na képp ku def loolu nga xam ne mi ngi may dimbali may dinaa ko dimbali dinaa ko dimbali ci ay noonam dinaa ko dimbale ci jafe-jafe yi àdduna ak sabbit aqdaamakum ba noppi itam dana dëgëral seeni tànk bu ngeen demee bay xeex yéen jullit ñi bu ngeen demee bay xeex te sama jëmm rekk tax daa leen dimbali dëgëral leen ci xeex ba ba ngeen am ndam ndax man ngeen dimbali moo tax may itam faaw ma dimbali leen laay yi ñëw ci alxuraan di wax ci dimbale yàlla ak yàlla dimbale ay jaam bari na bokk na ca wala yansuranna allaha man yansuru inna la qawiyun aziz ak wa kaana xaqan alayna nasrul muminin wax na feneen tam ci alquran inna la nansuru rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia wa yawma yaqumu l ashhad di tekki ne daal yàlla nee na moom samay jaam ñu ma gëm dimbale mayit dama leen di dimbale loolu mooy mbirum ñi gëm yàlla waaye ñi wedd yàlla nag wala diina kafaroo ñi nga xam dañoo wedd yàlla nag ñoom fetteerlu wedd alquran wedd muhammad ñoom moom fa tansan lahum ñoom moom tuskare texee di ñeel na leen texee di ñeel na leen ba noppi itam wa adalla amalahum seen jëf yi itam naax saay nasax réer seen jëf réer kon ñu wedd yàlla ñoom alku nañ ba noppi seen jëf yëpp day màpp du leen jariñ dara zalika li tax loolu am nag li tax loolu am nag li tax yéefar yu alku seen jëf yi màbbu mooy bi annahum ñoom yéefar yooyu karihu dañoo sib dañoo bañ maa andalallahu la yàlla wàccee ci ay kéemaan wàccee ko ci yonent bi sallallahu muy alquran dañoo bañ loolu yàlla wàccee ci àdduna moo tax fa ahbata amaaluhum seen jëf yi itam daal di màbbu comme ni nga xamee ne yàlla nee na ku ko dimbali mu dimbali la kasaalika itam ko xeex mu xeex la boo koy xeex mu màbb say jëf kon ñoom li yàlla wàcce ci alquran li yàlla wàcce ci ak njub ñu bañ ko fétteerlu sib ko bañ koo déglu di ko xeex tax na yàlla itam yàq seeni jëf yàq fi seeni jëf ginnaaw ba nag moom yàlla mu yeddi leen ñoom yéefar yooyu yeddi leen ci wan ginnaaw gi ñu wan ginnaaw kiimaane yàlla yi ba duñ ci waaru posé leen ab question boo xam ne istifham taw la dañ laaj laajte boo xam ne laaj bi yeddeel la ne waaw afalam yasiiru fil ard xanaa yéen du ngeen dox ci suuf si istifham boobu taqriya la xanaa yéen du ngeen ci suuf si fa yanduru ndax ñoom du dox ci suuf fa yanduru ñu xool kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim naka la mujjug ñi leen jiitu woon demee ñii nga xam ne ñi ngi wedd sama yonant di wedd sama alquran di wedd sama ay kiimaan ñoom xanaa doxuñu xanaa ñoom dégluwuñu information yi ñi leen jiitu woon ba gis na yàlla doxale ak ñoom lu mel nitu Aat lu mel nitu Samuda lu mel nitu Luut xanaa ñoom jënguñu seen histoire ba xam fa yàlla jaar ak ñoom ba weddee ñoom de seen histoire su ma ko doon tënk su ma ko doon résumé yàlla ne su ma ko doon résumé dama naan rek dammarallahu alayhim yàlla da na a moxañe yàlla da leen a ñoom ñépp ci seen kër ya alagaale seen alalee sax alagaale sax seen alal ya ak seen njaboot ga ndax ñoom ñëpp ànd fétteelu weddi mun laa def ak ñoom mu ne walil kaafirina képp ku wedd yàlla it am faaluha da ngay am da ngay gis lu mel noonu képp ku wedd yàlla fétteelu jaar ci yoonu gaa yooyee ma jaar ak fa ma jaar nag ñoom ñoom rek nga gis lu mel noonu nga gis lu mel noonu kon képp ku wedd yàlla sa mujj sa mujj mooy alkande sa mujj mooy alkande mu ne daalika ba tey beneen daalikaa ngi noonu alak googuma alak ñi weddi woon yàlla zaalika li tax loolu am mooy bi anna allaha naka moom yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moom ñëpp moo bind ñëpp mooy ki nga xam ne mooy mawla alladina mooy kilifa ñi gëm yàlla mooy wéeruwaayu ñi gëm yàlla yàlla moom moom mooy aar ñi gëm yàlla la ma ci aay bi jiitu ne bu ngeen dimbale yàlla dimbali leen ñi gëm yàlla nag di nekk ci diina yàlla yàlla leen dimbali moo tax ku jóg bëgg leen a gàllankoor mbaa nga bëgg leen a yàlla moo lay alak yàlla ngay léew tool moo tax saar gi bi anna laaha moom yàlla mooy ki nga xam ne mawla alladina amanu mooy wéeruwaayu mooy làquwaayu mooy kilifa ñi gëm yàlla te wa annal kaafiriin ñi wedd yàlla nag ñoom di xeex alquran di xeex yonente bi sallallahu alayhi di xeex lislaam ñoom moom laa mawla amuñu benn wéeruwaay amuñu genn kilifa amuñu benn làquwaay amuñu ku leen mën a musal ci alkande yàlla bu wàccee seen kaw jullit ñi moom am nañ buur bu mat buur yàlla ju mat yàlla sëkk moo leen bind di leen wërsëgal te moo bind lépp sax ñu gëm ak ñu wedd ñëpp yàlla leen bind ñee moom fetteelu moo tax yàlla rocc ci loxoom ci ñoom ba du leen dimbali du leen jàppale yàlla nag daal di leeral li nga xam ne moom la waajalal jullit ñi ci ab yool bu màgg ak lim mu waajalal yéefar yi itam ci mbugal mu metti mu ne inna allaha moom yàlla naka moom yàlla moom yàlla mooy ki nga xam ne yudxilu alladina amanu dafay dugal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm alquran gëm bis penci gëm àjjana safara da leen dugal ba noppi dañoo gëm ba noppi wax solaat di jëf jëf ju baax dañuy dugal jannaatin tajri yi jannaat ci ay ajjana ay ajjana yoo xam ne tajri yi day daw ci biir ajjana ya min taxtiha ca suufam al anhaaru ay dex ajjana yu neex nga nekk ci kaw ay bëti ndox yu neex yu rafet di daw ci suuf di daw ci suuf loolu moom mooy fayuk ñi gëm waaye wala dina kafaroo ñi nga xam dañoo wedd yàlla nag moom fetteelu lank ñoom moom yatamattaun danañ bànneexu de fii ci àdduna wa yakuluun di lekk itam kama takulul anaam comme ni xar yi ak bëy yi ak nag yi di lekke comme ni bàyyi may di lekke dañuy lekk comme ni bàyyi may lekk ñëpp ay lekk waaye loolu lu gàtt la ndax wan naaru sawara maswan lahum mooy seen mujj mooy seenu mujj mooy seen dëkkuwaay ñoom dañuy lekk di bànneexu ci lu dul ñuy xalaat ëllëg ci lu ñuy suural dara ci ëllëg comme ni ko bàyyi may defe rek comme ni ko bàyyi may defe rek foofa gis nga ne ŋàññi na fi yéefar yi ŋàññi wu ñaaw ndax mi ngi leen a nuraleeg bàyyi may yi nga xam ne ñoom amuñu sax ay xel yu ñuy jëfandikoo bañ mën a gëm yàlla mbaa ñuy def ndigal yàlla mbaa ñuy ba ñoom daal lekk ak naan daal moo seen yitte rek comme ni ko bàyyi may defee duñ xool lu araam duñ xool lu dagan duñ xool lu araam duñ xool lu dagan duñ xool lu lew duñ xool lu lewut yàlla ne na ñoom sawara mooy seen mujj bu ëllëgee foofu lañuy mujj wan naaru maswan lahum maswa ismu makaan la boo xam ne maxallu iqaamatul insaan fu nit di toog rek euh, dañ koy tudde maswa moo tax nga dégg sax bu nit faatoolee ñu ko ñaan naan wa jaalal jannata maswaahu yàlla yàlla def àjjana muy dëkkuwaayam yàlla nag daal di féranteel yorante bi dalal xelam ci li koy lo ko li koy li koy li koy li koy dal ci ay lor fàttali ko it ne na muñ rek mu ne waka ayin waka ayin bariwaana min xaryatin ci ay village ay dëkk yoo xam ne hiye dëkk yooyu ashaddu quwatan min xaryatika allati axrajatk yow yonente bi sallallahu wala waka ayin foo mën a nekk istifham laajte ana ñaata eh, dëkk ñooy dëkk yoo xam ne yu tar lañ woon yoo xam ne ñoo gën a tar sax sa dëkk bi nga nekk yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu ya fa daan am moo gën a metti loolu yiñ la teg yow xar ya fii yàlla mi jublu waa waa dëkk bi rek te mooy yéefaru màkka mushrik ko Quraysh la ci yàlla jublu da ko bëgg a wax ne ko bari ay dëkk yi nit yoo xam ne génne nañ ay jàmbur ngir ne dañoo jiyoo ñoom ci pas-pas dañoo jiyoo ñoom ci wàllu diine nu raw ni la dëkk génnee yow waaye loolu ba mu amee yit ba mu amee yit ahlak naahum dama leen alak te ba mu leen alak it fala naasira lahum amul kenn ku leen dimbali kon mi ngi dalal xelam di ko ne muñal te xam ne loolu daal rek man yàlla maa ngi koy gis te bu jóg jotee ñëpp danañ xam ne yàlla rek moom mooy yàlla loolu ab tahdid la ab xuppi la bu metti ci waa màkka ci wedd gu ñu wedd yonent ba ba fas ko yéenee génne ibn abi xaatim jële na ci ibn abbas mu ne yonent bi sansan ba muy ba ko yéefar màkka génnee ba muy génn màkka dem madina di gàddaay ba mu demee ba ca yoon wa geesu na xool màkka daal na ko cay yow màkka yaay dëkk bi ma gën a bëgg ci dëkk yàlla yi yaay dëkk bi yàlla gën a bëgg itam na ko bu buru woon ak yéefar yi nekk ci sa biir génnee ma kon duma la génn mukk ñu ne ba loolu amee ci la yàlla wàccee ay bi wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik min qaryatik allati akhrajatk ahlaknahum fala nasira lahum ne ko nag saa yu jóg jotee rek dañ xam ne yàlla rek moom mooy yàlla saar wi daal di continuer waxtaanam ci gam-gam ci ci màndaxe màndaxe dend la diggante ñi gëm yàlla ak ñi wedd yàlla seen mbir mu ne afa man kaana ndax ki nga xam dafa nekk na bayyinatin min rabbihi ci lu leer naññ lu jóge ci boroomam ndax kooku day bokk kaman mel na koo xam ne zuyina lahu suu yi dañ koo taaralal jëfum yu bon ya muy jëf ñu taaralal ko ba mel ne lu baax ba noppi tam wattabahu ahwaahum ñu topp seen bànneex ndax ñoom ñaar danañ yem loolu istifham inkaar yi la laaj la boo xam day wedd daa bëgg wax ne du njam mukk ki nga xam ne yàlla da koo gindi mu topp njub gi jóge ci yàlla tënku ci di ci góorgóorlu lu man lu bokk ak yéefar boo xam ne moom daa tëx lu amul soxla ci lislaam amul soxla ci ak njub di njam ndax ku njëkk ma dafa utiliser xelam topp yoonu baax ku ñaare ki nag moom dafa ñàkk utilise xelam topp yoonu bon yàlla nag daal di feddali gën leeral seenu mujj mujjug ñaari kuréel yooyu ñaari kuréel yooyu fa ñuy mujj mu ne masalul jannati allati waadal muttaquun su ma doon misaal daal àjjana ji nga xam ne moom laa dig kuréel bu njëkk bi te moom samay ndigal topp njub ga nekk ñu ragal yàlla àjjana jooju daal dafa nekk fii xaa nekk na ci àjjana yooyu anhaar ay dex fii yàlla mi ngi fi wax xéewal yu neex yu am solo yu am aljanna masalul jannat misaalum àjjana allati ja nga xam ne waidal muttaquun diggéef na ko ñi ragal yàlla te mooy ñi nangu jubug lislaam ñi nangu jubug alquran gëm yonante bi àjjana jooju da fiiha nekk na ca biir anhaar ay dex ay dex yoo xam ne maa in mi ngi jóge ci ndox moo xam ne xayra asinin xayri asinin ndox moo xam ne du nëx ndox moo xam ne du nëx ndox mu teey moo xam ne xet ga du soppeeku cafka ga du soppeeku couleur ba du soppeeku du forox mukk ndox la mu neex moo xam ne bakkan da koy bëgg jamono ju nekk bu ne nga koy naan di ko gën a soxla min maa in xayr asin almaa ul asin buñ ko waxee mooy ndox moo xam ne cafka ga wala xet ga daa soppeeku ngir yàggum yàgg ci béréb yàlla nag ne dex yi nga xam ne ñoom la waa àjjana di xewloo moom moom du soppiku mukk du soppeeku mukk waaye yàlla yëmut ñoom foofu mu ne wa anhaarun ak ay dex yoo xam ne miin laban soow lay doon meew dexi meew su ku bëgg meew ngay naan meew meew moo xam ne moom it lam yataxayyar taamuhu ak cafkaam it moom it du soppeeku moom it du fa yàgg mukk bañ naan soo mi daa wex ndax dafee yàgg mbaa daa forox ndax dafee yàgg comme ni muy amee ci meew ak soow yi am ci àdduna soow yi na moom melut noonu allahu akbar yàlla nañ ci yàlla yóbbu mu ne ba tey ñoom seen àjjana itam day am wa anhaar ay dex dex yoo xam ne min xamril lazatin li shaaribin min xamr day jóge ci sàngara dexi sàngara dexi sàngara yoo xam ne dañ koy naan mu neex lool ba noppi nekk lazza bànneex li biin ñeel ña koy naan sangara soo xam moom du metti bopp sàngara soo xam ne du yóbbum xel wax gu wax ne lazzatin li shaaribiin daa bëgg wax na ne kat day neex ci ñi koy naan wuuteeg sàngara si àdduna sii nga xam ne moom ku ko naan rëccu ko ba noppi day yóbbu am xel di metti bopp di waral ay feebar sàngara si yàlla wax yow ma xiyaam lay dagan waaye fii ci àdduna moom sàngara dafay xaraam fii ci àdduna sàngara dafay xaraam jaay ko daal xaraam jënd ko xaraam naan ko xaraam liggéey ca xaraam lépp xaraam bëri buñ koy jaay dong sax nga moom ko di luye ko nit mu toog fa di jaay sàngara loolu rek lañ la koy tere yi ñuy bayee sax la defar sàngara sax lañ lay tere nga liggéey ca yor soo oto sax sëf sàngara mbaa sëf ña liggéey dong dañ la koy aaye waaye bu dee àjjana nag moom yàlla dafay defar sàngara soon du bokk ak sii su neex ngir faye ko waa aljanna wa anhaaru min xamrin lazzatin li shaaribiin ba tey itam àjjana jooju itam wa anhaar day am ay dex min asal dex yoo xam ne dexi lem lay doon lem goo xam ne mu safa lay nekk dañ koy segg ba mu set wecc dex go euh, dexi lem yoo xam ne du am dara looy daj boo koy naan loolu mooy xeeti naan yi mu ne walahum dañuy am ñoom ñi texee dugg aljana ba tey mooy tamay jullit ñi walahum dañuy am ba tey fii ci biir aljana yooyu min kulli samaraat mboolem meññet yëpp mboolem luy xeetu fruit mboolem luy xeetu lujum mboolem luy xeetu luy sax gàncax lu mën a doon lu sa xel lu sa xel da koy am foofu ci aljanna da nga koy am foofu ci aljanna min kulli samaraat la wax bépp meññit boo bëgg da nga fa gis ba gis fa loo xam ne xamoo ko woon wa magfira ak njéggalu yàlla min bi gu jóge ci seen boroom lépp ci fay waa àjjana la bokk kon àjjana moom lépp lu sa bakkan bëgg danga koy am yi ñu wax ni dañ la ko limal rek mu yoo mën a jàpp ne muy ay misaal waaye ak yeneen yoo xam ne sax xamoo ko lépp loo bëgg ci saasi danga koy am waaw ndax yàlla mu ne bu ma ta tan eh, tastahil anfus comme ni ko yonte sama leerale lépp lu bakkan bëgg dafay am kon dañuy am dex yooyu am xéewal yooyu am meññeet yooyu am itam njéggalug yàlla wa maxfiratu min rabbihim ak njéggal gu jóge ci yàlla ndax da leen suturaal nëbb seeni bàkkaar dindi ko fayale ko sax aw yiw mu ne nag moom yàlla mu ne nag loolu may fay nag ñi gëm yàlla ba dugg àjjana kaman huwa day mel nekke koo xam ne xaalidun fi naar daa sax ca biir safara ma ngay joxe misaalum beneen kuréel ba ña wedd yàlla kon ni may fayee jullit ñi ay dex yoo xam ne ndox lay nekk ak soow ak sàngara ak lem fay leen ay meññet fay leen sax ak njéggal baal leen seeni bàkkaar kaman huwa xaaldun fi naar noonu tam lay faye kay sax ca sawara ñoom ndox mu tàng jër la am ndox mu tàng jër la am moo tax wa leen di màndal maa an xamima ndox mu tàng jër ndox ma dañ koy naan daraja tàngaayu àgg ci day dagg seeni butiit allahu akbar allahu akbar xool nga bu baax a baax différence bi am diggante naanuk waa aljanna ak naanuk waa safara ma an xamima ndox mu tàng jër moo xam ne fa qattaa amaahum dafay daggat seeni butiit laa ilaha illa yàlla na yàlla musal safara yàlla leeral na fi ñaari kuréel yi damay al axyaar wal ashraar ñi baax ak ñi bon ñi topp yoon wu jub ak ñi topp yoon wu dëng waaye mu leeral seen ak fa ñuy mujj ëllëg yowmal qiyaam kon mën nañ taxaw nii ba ëllëg ñu ñëw ak yéen ci laaya ci topp bismillahi rahmaani rahim bokk ñu ñëwaat yéen ci jataaye tafsir al quran al karim yi ñu ànd ak ci biir weeru koor wi tey moo suñ ñetteelu jataay ñoo ngi woon ak yéen ci suratul xitaal wala suratul muhammad ci jataay bi weesu ñoo ngi taxawoon ci laaya fukk juróom ginnaaw bi nga xamee ne yàlla def na ay détails ci mbirum jullit ñi ak mbirum yéefar yi ak ku nekk fa ngay mujj saar bi nag dafa tuxoo nag di wax ci mbirum naafeq yi te bañu ci diggante bi ñi nga xam ne bokkuñ ci ña ci lu nëbbu bokkuñ ci ñu weddi ci lu feeñ ni ci diggante bi ak eh, ban position la ci yonent bi sallallahu alayhi war a taxawee wala boog wala boog seen taxawaay ñoom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ban position lay am ci alquran nga xam moom yàlla wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na wa minhum am na ci nit ñi nag ñoo xam ne man ñoo xam ne yastami'u ilayk da da lay déglu yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci nit ñoox da lay déglu waaye xatta isa xaraju dañuy déglu di déglu déglu ba génn ba jóge ci yow saa ñu génne ci yow nag min indik qaaloo ñu wax lilladina utul ilma ñi nga xam na ñoom ñoo doon déglu dëggantaan te dañ doon ñor leen ñi nga xam ne am xel di jàpp wax ja naan leen maada qaala anifa lan la kii doon wax léegi wax nga wax na wa minhum day dellu ci yéefar yooyu ndax naafeq yi ab kuréel lañ ci yéefar yi ndax xëy na dañuy feeñal ak ngëm ci kaw waaye ak kéefar lañ nëbb moo tax ab kuréel lañu ci yéefari ab xaaj lañ ci yéefari moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom ñoom yéefari yi ma doon wax am na ci ñoom kuréel boo xam ne ñoom ay naafeq lañ nga xam ne dañuy toog ci yow ngay wax ñu mel na li leen li ngay wax da leen ñor waaye bu ñu fa jege ko naan sa moroom lu ki doon wax léegi naafeq ñu gën tasaaroo bi yente sanson demee Madina ba nga xam ne julli ji am nañ doole léegi nga xam ne nag ñu bari bari ñemeetu ñoo feeñal ak kéefar ci kaw ndax julli ñu am nañ doole gëmuñu naam waaye dañuy gëm-gëmlu nga xam dañuy nëbbu ak kéefar ci suuf ndax bañ ku leen fitnaal ndax bañ am ak jafe-jafe jullit ñi kon da bëgg wax ne daal am na ci nit ñi ñoo xam dañ laa bañ a bañ ba dañuy toog ci yow ngay wax waaye duñ la déglu buñ génnee dañuy wax ñi àndoon ak yow ci saxaaba li seen utul ilm nga xam ñoom dégg nañ say wax te mokkal ko te jàpp ko naan leen maza qaala anifan Muhammad lu mu doon wax sànq ba ñu faa jógee naan lu mu wax sànq lan la doon wax léegi al alusi nee na wa minhum ji eh, naafiq la ci yàlla jublu maada qaala arifan ji ñu wax dañ ci jublu istihza maanaam ñaawal ñaawal yonente bi ak gaa yi toogoon ci moom di déglu ay waxam saa muy saxaaba yi yàlla nag daal di leeral nag mbirum ñooñu daal ne ulaika ñooñu ñoo ñii di wax loolu alladina mooy ña nga xam ne tabaa allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol ya wat wattabau ahwaahum ñu topp seen bànneex gaa yooyu nga xam ne toog ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waxee ba àgg ku ne naan sa wax léegi maa ji laa saxaaba yi kii lu mu wax sax ngir ñaawal ko yàlla ne ñooñ dañooy naafeq yi nga xam ne seeni wax bon na te la ko waral mooy yàlla dafa tëj seeni xol ba nga xam ne duñ gis ak ngir ak ak njub duñ déglu ku leen laabiire duñ déglu ku leen waar duñ déglu ku leen jàngal ndax dañoo topp seen bànneex moo tax dem ba far amatuñ xel ndax topp bànneex laay bi day ñëw kon di melal pexe yi nga xam ne ak wor gi nga xam ne yéefa doon nañ ko wor wala naafeeq doon nañ ko wor jullit ñi ak mbon guñ bon ci seen biir waaye mu ñu feeñal ko wane seenug yées wane seenug yées mu ne wala jiina ña nga xam ne nag ihtadaw dañoo gindeeku wala jiina tadaw ña nga xam dañoo gindeeku nag topp la ñoom zaadahum hudan yàlla da leen dolli ak njub wa aataahum ba nopp mu jox leen taqwaahum seenu ragal yàlla kon ñi gëndee ko moom tamit jullit ñi gëm ngëm gu dëggu seen xol ñoom moom yàlla da leen dolli ak njub dolli leen xol bu set xol bu leer dolli leen booy wax ñu mën a xam li ngay wax di ko jàpp dolli leen feq dolli leen xam-xam waaye itam may leen ak ragal yàlla wa aataahum taqwaahum yàlla itam def ñu ragal ko loolu moo tax ba yowmal xiyaama ñu yeyoo fay yooyu nga xam moom lañ waxoon te yàlla di ko fay jullit ñi gëmoon yàlla ne fa hal yanduruuna illa saata an tatiyahum baxta saar wi di yedd daal yéef naafeq ba léegi ci sàggante gi nekk laaj laajte bi mu laaj fii fa leen duroon di mu wax laajte bi laajub inkaar la bu weddi ak taajub yéemu ci seen mbir mu ne gaa yi nga xam ne dañoo lànk fetteerlu ñoom dañu ndax dañoo bëgg xaar ba yomal xiyaam seen mbir ñëwal leen ba seen mbir ñëwal leen yomal xiyaam ko nga xam bu ñëw day bette te yomal xiyaam kat faqad jaa ay màndargaam feeñ na daa bëgg wax ne waaw ñii nga xam dañoo réer nekk ay naafeq ñoom lu ñuy xaar ñoom xanaa bis penc kon lañuy ñuy xaar bis penc moom nga xam day ñëw jékki-jékki bett leen te duñ ko foog te même bu fekkoon bis penc googu la ñuy xaar sax fi na jóg jot na ndax ay màndargaam commencé naa feeñ tey yàlla ngi leen yeddi rek ngir bëgg ñu dëpp waaye daa bëgg wax ne màndarga bi penc sax doonte feeñ na waaye ñoom taxuñu faale ko ñu ngi nuur ci liñ nuur rek ñu ngi rek faqad jaa ashratuha ay màndargaam feeñ na waaye fa anna lahum ñoom lan moo leen ñeel ida jaa adhum zikrahum buñ leen fàttalee yowmal xiyaam wala bu ñëwee saa yu yowmal xiyaam demee ba ñëw nag moom ñu commencé di patax pataxi nag bëgg nag tuub fekk booba tuub weesu na fekk booba tuub weesu na ñëw na ci alquran yeneen aaya yu wax loolu lu mel ne falam yaku yanfaahum imanuhum lammaa ra'aw ba'sanaa ak wa qaalu aamannaa bi wa annaa lahum tanaawush min makaanin ba'iid nit dana àgg foo xam ne day bëgg a tuub bëgg gëm yàlla bëgg a waaye day fekk mu weesu yow ma isin yatazakkaru insaan wa anna lahu zikra day bëgg fàttaliku foo xam ne fàttaliku ko jëriñ dara al alusi nee na mandarga bi penc yàlla wax fii ne commencé naa feeñ mooy lu mel ne yoon gi mu yónni yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ndax Buxaari ak Muslim ak Tirmisi yi jëlee nañ ci Anas ibn Malik mu ne yonante bi sallallahu alayhi nee na yàlla daf maa yónni te bi mu ma yónni ak li tee bis penc jot comme nii la ba mu koy wax mu tàlla ñaareel baaraamam yi baaraamam sànnikaay bi ak bi ci digg bi daane li baaraam bi ci digg bi surtout baaraam sànnikaay bi rek loolu la li des yoma xiyaam teew ak bi ma yàlla yónnee kon day wàññi kon yónni yonante bi ci mandargay mu jóg jamono la bokk mandargay bis penc la bokk maanaam gën a bis bañ jege na bokk na ci itam ci màndarga bis penc mooy xar gu weer wi te loolu am na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi te ci màndarga yi mujjug jamono la bokk bokk na ci it yeneen màndarga yoo xam ne yonent sama waxoon na ko lu mel na sàmmkat yi buñ demee ba di jongante di puukarante ci ay tabax jigéen di jur sàngam yooyu ci mandarga bis penc la bokk ak deegu bari gi te loolu ñëw na kon képp kuy tiit képp kuy waaru war ngaa defaru yàlla ne nag ñii nga xam ne dañoo naa fekk moom ndax daa mel ne dañuy xaar bis penc fa yanzuru illa saa an taatiyahum baxta te saa moom faqad jaa a ashratuha fa anna lahum iza jaatuhum zikrahum buñ ne ba saa ñëw nag dal seen kaw moom lu ñuy lu ñuy defate ban pexe la am yàlla nag daal digal yonte bi sallallahu alayhi wa moom mu sax ci jéggulu yàlla ak topp ko ko faalam xamal faalam xamal yow yonente bi ak mboolam ku la topp ne annahu moom yàlla moom laa ilaha illa allah amul kenn amul benn buur bu moom laa ilaha illa allah amul benn buur bu dul yàlla xamal loolu te gëm ko soo xamee loolu te ko moom rek ngay jaamu moom rek ngay wut moom rek ngay dabu bànnee xam wastaghfir li danbika te ngay jéggalu say bàkkaar yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam say bàkkaar yàlla mi ngi jublu mooy del ñaan yàlla bañ a tàbbi ci bàkkaar te sax ci yoon wi nga nekk del ñaan yàlla bañ a tàbbi ci bàkkaar sax ci yoon wi nekk yoon bi sax yàlla musal na ko sax ci bàkkaar ndax moom maasuum la kon saxal ci jéggul gi nga nekk rek doonte amuloo bàkkaar del sax ci jéggulu gi nga nekk wastaxfir zambik walil na wal muminaat del jéggulul tam jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi ci seeni rëcc rëcc di leen ñaanal yërmande yàlla di leen ñaanal ak njéggal te nga xam ne wallahu moom yàlla moom moo nga xam ne moom rek mooy ab buur yaalamu xam na mutaqallabakum wa mathwaakum yàlla xam na képp ku ne fa nga nekk ak la fa nekke ndax ci géej la ndax ci jéeri la lépp yàlla xam na ko xam na seen mbir yépp dara na buut ci moom tukkikat yeeg ñëpp ñi toog ak ñiy tukki ñiy dem ñëpp guddi ak bëccëg la cay xew lépp yàlla xam na ko mu doxale ko maswaakum même seen kër yee la ngeen fa nekke seen biir néeg seen biir salle de bain sax seen biir fu ngeen mën a dugg la ngeen fa nekk yàlla xam na ndax moom dara tëwu ko dara ump ko dara ump ko yàlla kon wax na yontu na ko del jéggulu moo tax mu ñu ci saxeex mu ne yonte sam daana wax bis bu set ne allahuma ixfir li xatiati wa jahli yàlla yàlla ma jégg sama njuumte ak sama réer gi wa israafi fi amri ak sama ëppal gi may def ci sama mbir wa ba anta alam bihi min nii ak li nga xam yaa ma gën a xam li nga xam yaa ma gën a xam daana jéggulu yàlla lu baree baree bare wax na ci xadis ne dee leen jéggulu yàlla ndax man mii day bis bu naa jéggulu yàlla lu ma téeméer yoon am na ay ñaani jégalu yu bari yu daan ñaan lu mel ne allahuma ixfir li ma qaddamtu ma axartu waaw da bi daa waxoon ne yéen nit ñi di leen tuub ci yàlla ndax ma mii de dinaa jégalu yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon moo tax boroom xam-xam yi ne war na ci jullit bu nekk muy saxal jéggulul yàlla ci aay bii la boroom xam sukkandikoo ba ne jullit bu ne war na saxal di jéggul yàlla bi sa wut ab lim kon jullit bu nekk war naa wut ab lim bis bu set mu fexe ko saxal di jéggulu yàlla ku man téeméer yoon baax na ku man ñaat téeméer ku man ñetti téeméer ku man junni waaye ngay wax astaghfirullaha astaghfirullaha ndax bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yàlla jégal na ko bàkkaaram yu njëkk ak ñu mujj moo daan sonn di tuub jamono ju nekk lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon kon koo xam ne moom yaa ngi tax répp ki bàkkaar xamu ba xam jégal nañ la comme déet yow a gën a jéggulu yàlla yaa war a gën a jéggulu yàlla am na it ñu ne yàlla tax mu digal yonte bi ne ko fii day jël jéggulu say bàkkaar mooy daa bëgg ñeneen ñi jànge ci bu ko nee wastaxfir zanbek te moom ñu jégal ko ba noppi kon keneen ku dul moom moom dana ci xame kon ñeneen ñi la bëgg ñu xam seen bopp moo tax mu jaar ko ci yonte bi sax bëgg na war na kat jéggulu ñëpp ku ko def ba ci yonte bi su ko defee nag képp koo dégg yonte moom amut bàkkaar tañ tañ moom moom wax na ko leen jéggalu kon ñun moom mënuñoo wax kon jéggalu lu ama am solo la ci alxuraan yàlla diglu na ko ay yoonu yoonu yoonu yoonu yoonu ginnaaw bi yàlla daal leeral mbirum naafeq yi ba tey buñ leen woowee ci ab xare bul fàtte ne saar yi sootul xitaal la tudd am na aaya jiiti woon yàlla wax fa yéefa jullit ne fa darba riqaab naafiq yi nag ñoom bu xare amee wa yaqulu alladina amanu dañuy wax wa dana wax alladina amanu ña nga xam ne dañoo gëm lawla nuzilat suura ay bu saar wi woon ay bu saar wàccul woon bu saar wàccul woon naafeq yi bu ab aaya masaana wàcc wala aw saar am na ci yàlla digle day loolu da leen a naqare dañ koy sip ba àgg ci naan lawla nuzilat suuratun ay bu saar aw saar wàccul woon am na it ñu ne yàlla dafa jubloo misaal fii aaya maanaam mbirum jullit ñi ndax ba wa yaqul ladina na la wax ñi nga xam ne dañoo gëm ñoom ñooy wax ne lawlaa nuzila suura ay bu aw saar wàccul woon maanaam dañu bëgg alquran ba ñoom bu alquran wàccee lii da neex lii da woon xamoo nu ñuy def dañ ko bëgg wala bu alxuraan gëjee wàcc sax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lawlaa nuzila suura ay xanaa ndax weneen saar du ñëw saar bu bees du wàccaat ñun dañ ko bëgg bëgg koo gaaw jëfe bëgg a gaaw gindeeku loolu ma mbirum jullit ñi wa yaqul ladina amanu ñi gëm yàlla ñoom dañoo bëgg alquran ba dañoo wax yonte sa naan ko lawla nuzila suura ak a neexoon saaru bees wàcc saar wii wàcc day nim neexa nii ay bu ñëwut woon waaye naafeq yi nag ñoom fa iza unzilat suuratun buñ wàccee aw saar muhkama saar wax na bu yàlla xerañe lay doon wa dukira fiha alqitaal ba nag mu tudd fa xeex tudd fa xare raayta alladina fi qulubihim marad da ngay gis ña nga xam ne seen xol ya feebar moo ci nekk yanduruuna ilayka ñu lay xool yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ lay xool nadara al maghshi alay min al mawt xoolub kuy waaji xëm ngir ragal dee saa fi aw saar wàccee woo xam ne moxkama la saar woo xam ne wu leer ay maanaa la yàlla digle ca jihaad nga xam ne moom kenn mënu ko tawila nen jullit ñoom dañ cee bëgg waaye na naafeq yi ñoom loolu da leen naqare da leen naqare ba dañ la naan jàkk di la xulli bët di la xool xoolub jéppi di la xool xoolub mel na kuy waaj a dee xoolub ku ne xaj ji ay bëtam du yëngu du raf ndax tiit yàlla nag ne fa awlaa lahum loolu ak xupp la awlaa fii am na ñu jàpp ne fi'lu maadi la bi maanaa qaaraba mooy fa awlaa lahum daal faatu googu jege na leen am ñu ko firee noonu am ñeneen ñu jàpp ne awlaa ismu tafdil la bi maanaa axaq wa ajdar mooy daal faatu googu moom moo gën a yey ci ñoom mooy faatu lu sax wuute ko moo gën a sedd ci ñoom ndax alkande ñoom dañ koo yayoo te moom rekk moo yell ci ñoom moom rek moo yell ci ñoom moom moo yell ci ñoom mu daal ne taatun wa qawlun maaruf yow yonte bi sama topp topp yàlla ak wax ju baax wala ngeen topp yàlla ak di wax lu baax ci yonte bi salaa salaam moo gën ci lii ngeen nekke moo gën ci yéen lii ngeen nekk yéen naafeq yi kon di topp yàlla di wax lu baax ci yow gëm la moo gën ñu lay xool xoolub ku jàq xoolub kuy waaja dee xoolub ku la jéppi xoolub ku la jéppi fa iza azama amru fa ida azamal amru buñ demee nag ba nga xam ne nag xeex bi moom taxaw na ñu farataal ko nga xam ne moom dara desul lu may xeex su boobaa falaw sadaqullaaha buñ dëggaloon yàlla gëm ko nangoo xeex ànd ak yéen la kaana xayran lahum loolu day moo gën ci buñ ko defoon loolu day moo gën ci ñoom suñ ko defoon waaw yàlla leeral nag la nga xam ne moom lay séentu ci ñoom muy fahal asaytum fahal ndax jàpp ngeen ne su boobaa in tawallaytum su ngeen wanee ginnaaw an tufsidu fil ard da ngeen mën a yàq ci suuf si dara wa tuqattiu arxaamukum ngeen dog seeni mbokk loolu mooy lim séentu ci ñoom ndax seeni wax moo baaxut dañ wax naan ñun nan lañuy xeex araab yi te ñoom ñu ñu suñuy mbokk loolu ay lay ñu daan wax rek la in tawallaytum mën naa nekk bi maanaa wilaaya maanaam yéen naa fekkee daal ndax jàpp ngeen ne bu ngeen bu ngeen ba am kilif teef bu ngeen ba yilif da ngeen ma def leen lut yàq ci kaw suuf ak ndog ak mbokk am na it ñu ne in tawallaytum min at tawalli bi maana al i'raad maanaam wane ginnaaw yàlla da leen bëgg wax ne kat yéen naa fekkee su ngeen bàyyee xeex ci yoonu yàlla ngir wane kat loolu kat ak dogug mbokk la ak yàq la ngir yéefare suñuy mbokk lan su boobaa itam mbir moomu du leen dolli lu dul ak yàq ak dogug mbokk ba tey ndax loolu yéen moom moom mooy seen baax moom ngeen baaxoo mooy seen baax moom ngeen baaxoo kon loolu rek lañuy séntu ci yéen du ngeen xeex mukk te yàlla tax yàlla nag daal ne ulaika ñooñu ma wax muy naafiq yooyu nga xam ne dara jëlu leen jóg duñ xeex mukk ci yoonu yàlla alladina mooy ña nga xam ne laanahumullah yàlla rëbb na leen fa asammahum mu tëxal leen wa ama absaarahum ba noppi itam mu gumbaal seeni bët seeni bët yàlla dàq ne leen ci yërmandeem tëxal leen ba duñ dégg aw duñ dégg alquran gumbaal leen ba duñ gis kiimaane yàlla yi duñ gis ah, lu leen lu yéem lu leen waar ndax wan ginnaaw guñ wan ginnaaw alquran yàlla daal na nag afalaa tadabbaruna alquran waaye ñoom ñooñu xanaa duñ setantal alquran xanaa duñ xool alquran mbaa ñu déglu ko sax setantal ko bokk am ala qulubin aqfaaluha wala boog seen xol ya xomb ya da caa ba dara mënu caa dugg xanaa naafeq yi moom seen xol yi dafa tëju dañ koo xombe ba mënuñoo setantal alquran alquran ak ni mu leere ak ni ak njub baree ak nit ci yërmën yàlla bare ñàkk koo xam ñàkk tawfeex ba woon ko ginnaaw ñoom xanaa duñ ko setantal daa bëgg ne bu ñu ko setantaloon rek suñ ko setantaloon léegi ñu gindeeku ndax alxuraan yàlla ko wàccee mu nekk hudan nekk ak njub ci képp koo xam ne déglu nga ko te di ko setantal laa bi nuroo naag afalaa tadabbaruuna qur'aana walaw kaana min indi gayrillah la wajadu fii ixtilaafan kasiira yàlla waxoon na ne ñi wedd alquran xanaa duñ ko satantal ndax buñ ko setantal setantal dañ xam ne alquran ji waxi yàlla dong nga ci yàlla lu jóge yonente bi waxu ko laay boobu sax moo tax borom xam wax ne alquran ku koy jàng da nga ko war di setantal di xool li ci nekk ci ay hidaayat ay orientation ak i ndigal ak i tere ak i teggiin ak i àtte ngir nga ko yéene jafe te bañ ko wan ginnaaw ñàkk ko satantal bay nuroog naafeq yi mbaa ngay nuroog yéefari kon ñu taxaw fi ba ëllëg ñëw génn ci beneen bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci jataayi tafsirul qur'aanil karim yi ñu ànd ak ci biir weeru koor wii atum 2022 ñoo ngi woon a yéen ci suratu muhammad ci jataay bi weesu ñoo ngi taxawoon ci laaye ñaar fukk ak ñeent afala yatadabbaruuna alqur'ana am ala qulubin aqfaaluha saar wi booba mi ngi wax mbirum naafiq yi ne ñoom xanaa duñ si setantal alquraanul karim wala boog seen xol yi dañ koo tëje ki xomb dañ koo kànnaare mu continué ba léegi di wax ci seen mbir waaye di wax itam li leen puus ci naafeq googu ak seen mbir mu ñaaw mujj gu ñaaw gi ñuy am bis bu ñuy faatu mu ne inna alladina gaa yi nga xam ne inna allazina irtaddoo gaa yi nga xam dañoo génn ci lislaam fettirlu ala adbaarihim wana ginnaaw min baadi ma tabayyana lahumul huda ginnaaw bi nga xamee ne jub gi leer na ci ñoom ñoom day cheytaanu sawwala lahum seytaane moo leen man moo leen jekku wa am laa lahum ba nopp moo leen di digte lañuy ñuy def irtaddoo ju mu wax mooy ñi nga xam dañoo delluwaat ci ak kéefër delluwaat ci ak réer te loolu mooy naafeq yi nga xam ne ñoom dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye nag nëbb ak kéefër ci biir gis nga mu ne min baada ma tabayyana lahumul huda loolu da leen bëgg a ŋàññi bëgg a wane ne ñoom delluñu waat ak kéefar ngiru ñàkk xam waaye dañoo xam mbir mu leer leen nañ ba noppi ñu ne ko fa ñukk delluwaat ci ak kéefar kon dañoo féeteerlu di jëf-jëfi maa tey ndax ñu ngi dund ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam muy jële ci yàlla di leen jox lu leer nañ mooy lislaam ñu dem ba xam ne lislaam ji moo dina dëgg ànd ak loolu ñuy feeñal lislaam ci kaw di nëbb ak kéefar mu ne ñoom daal seytaane moo leen man sawwala lahum aseytaanu sawwala lahum mooy moo leen naatalalal lañ nekk moo leen ko taaralal moo leen ko yombalal sawwala mu ngi jóge ci taswiil bi maanaa ak tasyiini wa tashiil soo waxee sawaltu li fulaan wala sawalat li fulaan nafsuhu hada al fi'l ay zayanathu wa xasanathu lahu kon seytaane mu leen taarala lañ nekk ba tax ñu nuur ca wa am laa lahum am laa ji tam mi ngi jóge ci al imla wa huwa al ibqa seytaane moo leen desloo ca loola moo leen gàccaloo la lañ nekk gis nga fii dafa wéer seytaane mbir mi ànd na ne yàlla moom mooy ki lépp waaye seytaane moom mooy sabab bi nag mooy sababu seen réer googu mu ne daalika ñoom ñooñu li tax ñu dellu ginnaaw génn ci lislaam nëbb ak kéefar zaalika loolu bi annahum mooy ñoom ñooñu qaalu dañoo wax ne lilladina karihu dañoo wax ña nga xam ne dañoo bañ li yàlla wàcce ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam lilladina karihu ma nazala allahu sanutiicukum fi baad al amr sanutiicukum fi baad al daa bëgg wax ne ñoom féetal googu ñu féetal dellu ci ak kéefar dañoo wax ñi nga xam ne dañoo sip la yàlla wàccee ci ñoom te ñooñu mooy yahuud yi ak ñi mel na ñoom naafeq yi dañoo wax yahuud yi nga xam dañoo bañ li yàlla wàccee lazina karihu ma nazala ne leen sanutiicukum fi baadil amri ñun daal danañ ànd ak yéen ci yenn mbir danañ leen topp ci yenn mbir te yooyee bokk na ca mooy daañ ànd néegi àndandoo yéen noonoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon zalika bi annahum ñoom naafiq yooyu qaalu dañoo wax lilladina ñeen ña nga xam ne karihu ma nazala allahu dañoo bañ la yàlla wàccee ta ñooñu mooy yahud yi naafiq yi kon dañoo dañoo wax yahud yi ne leen sa nutii'ukum fi ba'dil amr daañ ànd ak yéen ci yenn mbir am na point yuñ dëppoo ak yéen te bokk na ca noonoo yonent bi sallallahu alayhi ak xeex ko ginnaaw bi ko yàlla yónnee yalla wax na lool ci alquran ci beneen béréb sax ba muy wax alam tara ila alladina naafaqu yaquluuna li ixwanihim alladina kafaru min ahli alkitaabi la in uxrijtum la naxrujanna maak wala nutiu fiikum ahadan abada laa yooyu firi nañ ko mu ne nag wallaahu moom yàlla mu xam na israarahum xam na la ñuy ruumandaat loolu da ko wax ngir xupp leen ak tëkku leen wane ne yenn naa naafeq yi lii ngeen ni ruumandaat te di ko wax yahud yi jàpp na kenn xamu ko yàlla moom xam na seeni secret yëpp xam na seen complot yi ngeen nekke wax ju ñaaw ji ngeen wax ci suuf ak jëf yu bon yi ngeen di ràbb yàlla xam na ko te itam dina leen ci mbugal danga leen ci mbugal yàlla moom dara tu dara ump ko xam ne lu nëbb xam du feeñ kon yàlla nee na leen xam na seen secret yooyu ngeen di romandaat ci suuf mu ne mu ne fa kayfa iza tawafathumul malaa'ika foofu mu ngi leeral bu malaaka yi ñëwee bay ngëpp seeni ruu di jël si seeni ruu di leen faat laajte gim laajte dafa bëgg màggal mbir mi ne ñooñu nan la ñuy def bu malaaka yi ñëwee di leen faat fa kayfa iza tawaffatuhumul malaa'ika nan la ñuy mel nan la ñuy def bu malaaka yi ñëwee na jalañ di jël si seen ruu yi di jël si seen ruu yi su boobaa yadribuuna daneen dóor wujuuhahum seen kanam yi wa adbaarahum ak seen ginnaaw yi wujuuhim ji mu wax mooy lépp nag seen kanam rek adbaarihim jam mooy lépp lu nekk ci seen ginnaaw daa bëgg wax na ñii nga xam dañoo murtat nëbb ak kéefar nekk ay naafeq ñoom nan la ñuy def bis bu malaaka ñëwee di leen faat ñoom day sikk saaka amul ne bis bu ñuy faatu danañ réccu te seen mbir dana ñaaw lool ndax malaaka yi ñëw jël si seeni ruu jël si seeni ruu ba ñu rëccu ba mel ne kuy dóor kanamam ci suuf wala boog malaaka yi bu ñëwee dañuy dóor seen xar kanam yi ak seen ginnaaw yi dóor yu metti waaw kon yadribuuna fii malaaka yi ñoom ñooy faa'il bi malaaka ñoom ñooy dóor wujuuhum seen gin seen seen kanam yi wa adbaaru ak seen ginnaaw yi laaya boobu nuroo naag beneen laaya ba tey walaw tara is yatawaffal is yatawaffa alladina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa duqu adab mu ne daalika lool nag bi annahum ndax ñoom ñooñu di naafiq yooyu ittabau dañoo toppoon ma asxata allah la merloo yàlla li tax malaaka yi di leen faat si ba nopp boole boole ko gileeni dóor mooy ñoom ñooñu dañoo merloo yàlla toppoon la nga xam ne dafay merloo yàlla te loolu mooy ak kéefër ak ay moy ittabao ma asxatallaahu dañoo toppoon la merloo yàlla wa karihu ridwaanahu ba noppi ñu bañ lay kontaanloo yàlla ñu bañ lay gërëmloo yàlla ba tax fa ahbata amaaluhum seeni jëf daal màbb seen jëf yëpp daal di ndax jëf yéen jëfoon yëpp defuñu ko ci xol bu set teguwut ci ak ngëm moo tax ginnaaw bi yàlla daal di xuppaat naafeq yooyu ci ne dina feeñal seen mbir seen secret mu ne am xasiba dina fi qulubihim marad ndax ñi nga xam ne seen xol yi daa am feebar dañoo jàpp ne alla yuxrija allahu adgaanahum yàlla du génne ya nëbbu ci ay mbañeel ci seen xol ndax ñoom dañoo jàpp ne lañ nëbb ci ay mbañeel ci seen xol yàlla xamu ko te du ko génnee loolu ab laaj la boo xam ne day dàq daa bëgg wax ne du demee noonu al adgaan mooy jamu dagan wa huwa al xaqdu shadid mooy mbañeel gu tara tara tar nee na ko naafiq yi la nga xam ne moo fees seen xol yi ci feebaru wedd yàlla ak réer ak mbañ guñ bañ yonent bi sallallahu alayhi ba xaw a nuróog sax yahuud yi bokk ñoom bañ yonante bi sallallahu alayhi wasallam ndax dañoo jàpp ne yàlla du feeñal loolu xàkke ah, yàlla dina ko feeñal ndax yàlla moom dara nëbbuwut ci moom lépp la xam te dara tëwu ko itam ci kaw suuf du ca asamaan moom yàlla nag mu daal di wane kattanam mu ne walaw na shaa'u bu ñu neexoon ñun yàlla la aray naakahum ñu wan leen leen lépp yéen nit ñëpp ngeen xam mbirum naa naafeq yooyu buñ neexoon ñu wutal leen ay màndarga wutal leen ay xamtu marke leen ba fu ñu romb ñu xam ne naa naafeq yaa ngi nee waaye yàlla rek la neex mu bàyyi leen ci biir da leen a bàyyi ci biir ñu raaxaloo ci jullit ñi di ànd ak ñoom di julli léeg-léeg di ànd ak ñoom di woor léeg lekk di ànd ak ñoom dem ci xare yi jàpp ne kenn xamu leen fekk yàlla xam ne ne ñoom ñëpp te bu neexoon mu wane leen wala nasha bu ñu neexoon ñu yàlla la alay naakahum ñu wan leen leen yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fala te subaa da leen xam di simaaxum ci seeni màndarga suba da leen xam ci seen màndarga fala araftahum ji da ko wax ngir feddali rek walla wala taarifannahum te itam da leen xam fii laxnil qawli ci wax ju juunu wax ju dëng ji ñuy wax wax ju dëng ji ñuy wax ndax dañuy wax ay wax yoo xam ne léeg-léeg nekkul ci seen xol boo koy dégg rek xam ne gëmuñu ko wax yoo xam ne dañ nuru lu rafet fekk ñaawal lañ ci jublu fekk ñaawal lañ ci lañ ci jublu mu ne wallaahu yàlla yaalamu amalakum xam na seen jëf yi ñoom ñooñu xam na seen jëf yi ñoom ñooñu xam na ko te bu ko neexoo nit wane ko bu ko neexoon mboolem secret yi nëbb yëpp moom yàlla mu wane ko jële nañ ci abdullah ibn mas'ud walla abi mas'ud tamit uqbata ibn amr mu ne yonente bi sallallahu alayhi mas nañoo xutbaal ci jàkkaam sant yàlla tagg ko dal ne am na ci yéen dañoo xam ne am na ci seen biir dañoo xam ne ay naafeq lañu daal ne képp ku ma tudd ci ñoom nag na jóg commencé di lim di rappel gaay ndax yàlla moo ne ko yaa leen ko xamal naan xum yaa fulaan yow diw jógal yow diw jógal naan di rappel di rappel ba woo fanweeri nit ak juróom benn daan na yéen ñii xoolal leen seen bopp te ngeen dagal yàlla xool leen seen bopp te ngeen ragal yàlla kon day wane ne moom yonent bi sallallahu alayhi yàlla xamal na ko naafeq yi ak seeni seeni màndarga kon wallahu yàlla amalakum yàlla xam ne seen jëf ñoom naafeq yi teyitam itam bu yowmal qiyaamee dana leen fay lañ daan jëf lépp daa leen fay la daan jëf lépp mu ne walla wala nablu wannakum fii nag mu ngi leeral moom yàlla lim baaxoo ak jullit ñi wala nablu wannakum dinaa leen nattu yéen jullit ñi yéen nit ñëpp xatta naalamal mujahidina minkum ba ba ñu xam ñiy jihaat ci yéen wa saabiriin ak ñiy muñ wa nabluwa axbaarakum ma nattu it seeni mbir yàlla nee na yéen nit ñi dinaa jëflante gi yéen nattu leen ba xam ci yéen ñii ay jàmbaar xam ci yéen ñi lislaam jaral jihaad jaral jaay seen bakkan jaral joxe seen alal feeñe seeni xibaar ba xam cee rafet ak ye ñaaw xam ñi seen gëm dëgër xam ñi seen gëm feebal faible lépp kon ngir nattu jullit ñi lépp ngir nattu jullit ñi mu ne inna alladina kafaru kon saar wi da koo tëjee woote nag ci lu baax woote ci jëf ju baax ak xupp yéefare ci mbugal mu metti ak bëgg ñu gaaw tuub jàjju bala ñuy faatu waaye bëggal tam julli ñi ci yool bu réy réy bu leen xaar yowmal qiyaam inna allazina kafaru yi nga xam dañoo weddi yàlla wa saddu an sabilillahi ba noppi wan ginnaaw yoonu yàlla wa shaaqu rasula ba noppi ñu juuyoo yonente bi bañ yonente bi min baade maata ba ma tabayyana lahumul huda ginnaaw ba nga xamee ne njub ga leer leer na ci ñoom lislaam ji leer na yoonu jub leer na ci ñoom ba nopp ñu ne ko fa ñukk ba ko fa ñoom day la ñuy def seen bopp rek lañ koy def lañ sey shay'a du wàññi dara yàlla duñ lor dara yàlla waaye ñoom ñoo cay perte wa sa yuhbitu amalahum seeni jëf moom moo cee mabbe ñoom ñoo cee perte ñoo cee ñàkke ñoom ñi nga xam ne njub gi ñëw na ba noppi ñu wan ko ginnaaw ñoom rek ñoo cay perte bu yowmal qiyaamee la ñuy wax wa na ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan manthura la ñaan jëf lépp jàpp na lu baax la lu mel ne jox ñam ku xiif lu mel ne jokku mbokk jàpp woon ko ay jëf yu baax bu yowmal qiyaamee dañuy fekk muy pënd bu ñu wisaa du leen jariñ dara ndax la ko def moom mooy dañoo gëmut yàlla te yàlla moom du nangu jëfi kenn koo xam ne gëmu ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ña muy nangu seen jëf mooy ñi ko gëm ba noppi ragal ko ñi ko gëm ba noppi ragal ko kon la def du wàññi yàlla dara waaye ñoom ñoo cee perte yàlla nag daal di lancé ab appel ba tey woowaat jullit ñi digal leen ñu koy topp tey bàyyi xel yàlla moomu mu ne yaa ayyuha alladina amanu ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm bis penc gëm alquran gëm yonante bi atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasula te ngeen topp yonante bi te it wala tubtilu amalakum bu leen yàq seen jëf yi yéen ñi nga xam ne xas ngeen ba gëm ne moom yàlla moomu dangu mooy yàlla moo leen sàkk di leen wërsëgal di leen faat di leen dekkal moo bind àjjana bind safara day leen topp yàlla moom toppale ko ci lépp lu mu leen digal day leen topp yonent bi sallallahu alayhi ci lépp lum leen digal te bu leen ko moy bu leen ko moy te it seen jëf yi bu leen ko yàq wala tubtilu am tabtilu amalakum wala tubtilu amalakum wala tubtilu amalakum bu leen yàq seen jëf yi mooy bu leen jëf lu wax ba noppi di ca ndamu ndax kon day yàqu bu nit di jëf dara ngir njistal ndax njistal it yàq jëf bu leen di bokkale yàlla it ndax bokkale yàlla itam ba tey dafa yàq jëf naafi ibnu eh, naafi jëlee na ci abdullah ibnu omar mu ne ñun mboolem saxaaba yi day dañoo jàppoon ne lu waay def ci lu baax rek ñu nangu ko loolu lañ jàppoon waaye biñ ñëwee ba aay bi wàcc nag lañ xam ne ndekete am na jëf yu baax yu ñuy jëf te du baax te yàlla du ko nangu ñu daal ne waaw léegi lan mooy yàq ay jëf ñu daal ne xanaa bàkkaar yu mag yi ak ñaawteef yi waaye ne bañ waxee loolu tam yàlla wàccee inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma dun liman yasha ñu daal di bàyyi wax jooju waxatuñ ko kon yàlla nee na ñi nga xam ne yi ñi nga xam ne gëm ngeen di topp yàlla ak yonante bi te bu leen yàq seen jëf yi mu ne inna alladina kafaru gaa yi xam dañu wedd yàlla nag wa saddu an sabilillahi ba noppi gàllankoor yoonu yàlla summa maatu ba nopp ñu faatu waxum kuffaar fekk ñu nekk ay yéefar jëriñoo tuub ñoom moom falan yaxfir allahu lahum yàlla du leen baal ñoom yàlla moom ñëpp la mën a baal seeni bàkkaar ba mu des ku ko bokkaale ba faatu comme ni ma ko waxee ci laay boobu weesu léegi yàlla du baal mukk ku koy bokkaale kon képp ku wedd yàlla li fekk faatoo goo boo tuubee yàlla dana jéggal waaw ndax inna laa yaxfiru dunuuba jamiian loolu aaya boobu di tekki waaye boo xasee faatu nag di bokkaale yàlla te tuuboo ko moom in su boobaa nag inna allaaha laa yaxfiru an yushraka bihi moom mooy sab atte yàlla du baal bàkkaaru ku ko bokkaale ba faatu kon nee gis nga mu ne fa lan yaxfiru allaahu lahum yàlla du leen baal mukk ñu ne ci beneen aaya inna alladina kafaru wa maatu wa hum kuffaar falan yuqbala min ahadihim milu ard dahaba wala yuftada bi wulaag lahum azabu alim wa ma min nasirin yàlla nee na ñi bokkaale ba faatu kenn du leen nangul ëllëg yowmal xiyaam kenn du leen baal doonte dañoo amoon sax lu toll ne suuf si ak or àddina sépp fex dell ak or ñu bëgg koo joxe ngir mucc ci safara yàlla nee na kenn du leen nangul falan yuqbala min ahadihim gis ngeen kon texe yowmal xiyaam li mu jar nga xam ne même ñi texee bu yowmal xiyaamee danañ géejoo amoon àdduna si fees dell ak or ñu joxe ko ci yoonu yàlla ngir dugg àjjana waaye yàlla dunañ ko nangul kon texe jar na lu ne yàlla na falaa tahinu boobu mi ngi wax ak jullit ñi ngir bégal leen falaa tahinoo mooy bu leen doy di yéen jullit ñi dëgër leen te xam na yéen yéenay nit yàlla yéenay gaay yàlla bu leen doy de bu ngeen dajeeg yéefar yi ndax yéen yéen a yàlla bu leen ragal bu leen ragal xeex ak ñoom walla tahinoo mi ngi jóg ci alwahne bi tekki ak lompañ ak néew doole ñu ne ci alquran wa ka ay min nabiyin qaatala mahu rabbiyuuna kathiru kathir fama wahanu fama wahanu lima asaabahum fi sabilillah yàlla leen julliñ kon falaa laa tahinoo bu leen di wa tadoo ila silmi ila salmi waaye na ngeen woote it jëm ci jàmmoo waaye wala bokk fala tahinoo bu leen doye di ci seen kanam kanam yéefari wa tadoo ila salmi ngeen di woote ak jàmmoo ngir ragal wa antumul aawlan te fekk yéen yéen a féete kaw xam leen ne wallahu maakum yàllaa ngi ànd ak yéen wala yatirakum amalakum te du yàq seeni jëf du leen bàyyeeg seen bopp du yàq seeni jëf du ca wàññi dara te du leen bàyyi seen bopp dana leen taxawoo dana leen taxawoo borom xam-xam yi nee nañ ñu tax yàlla wax fii jullit na leen fala tahinu wa tad'u ila salmi bu leen doye di woote woo jàmm loolu mooy bu fekkente ne woote jàmm dafay lor jullit ñi wala boog woote jàmm goo xam ne ak ragal ko ware waral wala dafay lor jullit ñi da leen toroxal subaa moom kenn du woote jàmm dañuy xeex luñ am jël waaye bu fekkee woote jàmm goo xam ne nag moom du lor intérêt jullit ñi moom su boobaa moom dara néew ca ndax alxuraan nee na wa in janaxoo li salmi fajnah laha wa tawakkal ala allah noonu yonent bi sallallahu alayhi bu yéefari nangoo jàmmoo ak yow ah su boobaa jàmmoo waaye li ñu bañ kay moom mooy ñuy ñagasal ñoom yow ngay jàmmoo ngir ragal yàlla wane luy tegtale suufek àdduna si ñu nekk mu ne innamal xayaatu dunya dunuk àdduna ji ñu nekk daal du leen lu may laib am fo wa lahu ak caaxaan wa in tuminu bu ngeen gëmee nag yàlla wa tattaqu ba nopp ragal ko yutikum ujurakum dana leen jox seenu fay yéen ñëpp wala yasalkum amwaalakum te du leen laaj alal du leen yeeku yàlla nee na bëgg àdduna bu mu leen taxa doy ci kanamu yéefar yi maa ngeen yambare ndax àdduna sii ka du dara lu may lëhu ak laayib laayib mooy loo xam da cay nekk mu koy soxlaal te du am benn du amal benn njariñ ci àdduna du ko amal benn njariñ ci àllaaxira waaye bu fekkente ne nit ki am na lu muy yittewoo loo xam ne xëy na mën naa am njariñ fii waaye da koy fàttaloo allaaxira kooku mooy lëxu yàlla nee nag bu ngeen gëmee yàlla taragal ko yàlla dana jox seenu yool te du leen fayeeku du leen digal ngeen joxe alal ngir am loolu mu ne in yas'alkumuuha fa yuxfikum daa bëgg a wax ne moom yàlla même bu leen laajee alal lu mel ne mu digg leen azaka walla sarxe su leen ko laajoon it fa yuxfikum tabxalu maanaam ngeen gàntal ngir nay wa yuxriju adqaanakum seen mbañeel seen mbañeel yi génn seen mbañeel day génn daa bëgg wax ne in salkumuha bu leen laaj seen alal jëpp fa yuxfikum kon mën naa am ngeen ngeen gàntal wala fa yuxfikum tabxalu ngeen gàntal ngir nay wa yuxrij adxaanakum su ko defee nag seen xol moom commencé fees ndax doomu aadama ma bëgg alal lool ba kooku koy laaj rek su ko neexut ci lu lu ko neex mu bëgg koo defum noonu lu ko defum noonu saar bi nag yàlla tëje ko ne ha antum haulaai tuddaawun ha antum yéen a ngi nii yéen jullit ñi tuddaawun la tunfiqoo fi sabilillah dañ leen ne woo ngir ngeen dépensé alal ci yoonu yàlla yéen jullit ñëpp yàlla mi ngi leen woo ngir ngeen dépensé alal ci yoonu yàlla lu mel ne jihaad ak dimbal diina yàlla ci waaye nag fa min ku am na ci yéen ñoo xam ne ma yàpp xal day nay yàlla mi ngi leen woo ci ay bunt yi def lu baax yu baree bare bare ngi def seen alal pour mu jariñ leen ci seen bàmmeel jariñ leen yowmal qiyaam jariñ leen bu ngeen jéggi siraat kaweel seeni maqaama yowmal qiyaam waaye fa min ku ma yab xal day am ci ñeen ñoo xam ne dañuy nay ba duñu dépassé alal mukk ci yoonu yàlla wala boog lu néew lañ cay def yàlla nag ne wa man yab xal ku nay ba du joxe alalam ci yoonu yàlla du ci tabax allaaxiraam du ci def loo xam bu faatoo mu koy jariñ fa innama yab xalu an nafsihi su baa moom boppam rek la ko def ndax léegi mu faatu ba fi alal ji ñeneen di ko jariñoo te moom fa mu nekk ca barzaq ca bàmmeel dara du ko fa fekk te la gënoon mooy mu defoon ci ay jëf yoo xam ne bu faatu woon tey jii lam jëfoon ci lu baax tuyaaba ji ko fekk ci bàmmeelam ba mu defu ko nag ah boppam la koy def wa ma yàpp xal ku nay ba defa sa àll ci yoon yàlla fa na yàpp xal an nafsihi boppam rek la ko def boppam rek lay nayal day mel ne ku day mel ne ku naye dépensé ci boppam ku naye financé ci boppam dara ndax bu la leeral li nga def ci yoon yàlla yow lay jariñ boo duggee sa bàmmeel nga lànk bañ koo def kon yaa ngi xañ sa bopp ay tuyaaba mu ne ko koo def sa bopp nga ko def waaye defu ko yàlla de ndax wallahu moom yàlla moom alganiyu mooy ku woomal ki nga xam ne moom ñëpp moom lañ yaakaar lu waaye am moo la ko jox wa antumul fuqaraau te yéen moom yéenay ñu ñàkk ñi yàlla moom mooy ki woomal bi mooy patron bi yéen moom yi ñëpp da ngeen aajoo ci moom lu ñu nit bari la bari la ci yéen rek teewul muy aajoo ci yàlla ba tey di soxlawoo yàlla mu ne wa in tatawallaw bu ngeen wanee ginnaaw nag lànk bañu def li wax subaa yastabdil qawman xayrakum mën naa ram mën na leen remplacer weneen nit bu bokkut ak yéen mën na leen fee jëlee andi fi ñeneen nit ñu bokkut ak yéen thumma nu yakunu amthaalakum te ñooñu moom duñ mel ne yéen ñooñu moom dañuy mokk lool bu leen yàlla digalee ñu def bu leen teree ñu bay bu leen waxee joxe leen ñu joxe kon bu neexoon yàlla tey ji mu jëlee leen fii ñëpp bu ngeen mu jëlee leen fii andi ñeneen nit ñoo xam ne laa yakunu amsaalukum duñ mel ne yéen ñoom duñ gàntal def lu baax dañuy tàlli dañuy tabe kon foofu la suratu muhammad jeexe yàlla jeexale ko ci soññ nit ñi woo leen ci ngëm yàlla woo leen ci tabe waaye itam tere leen nay ak bañ a def alal ci yoonu yàlla kon ñu taxaw fi ba ëllëg ñu ñëw ak yéen ci euh, saar bi ci topp incha allahu taala te mooy euh, suratul ahqaaf